wasaay xalifa rappeur laa mi ñu askan wi noonu naa fekk yi waaw muy bud si dëgg ak si jaam salaam ñun dëgg moo daw suñu yaram de xaw kañ ay si njaay place am kaso yoon defee yoon waaw bato engrais nañ ko tijiwat naa si daal naa si ñaa naa si ñaa daal saawaay mooy kumba amul ndey waaw moom tëdd na si kaso ah bato engrais wu ñaata cinq six milliards saawaa ji wala boob nekk si taan bi nii saa di jéem a jaay ay jomma ñaaw gaan ay puugaréewu saa di fen gaan wala boob su dee ay Malick Sy radiyallaahu nitu yàlla la waaw buggul gaama la sumaay affaire de xawaare xaw ma affaire de ngisal loolu booy xool gaan affaire de séedaane la rek waaw kañ boo bëggee dëgg loolu la ay gàmmu fimis si séedaane la waaw kañ man ñun duñu ay ngaaxade ñun fii nañ dëkk benn dix ans la kan moo fi liggéey milliard loolu fan ah xanaa diplomate yi sax saa waaye mënuñu liggéey milliards gain si benn quinze ans wala vingt ans ah téegaama la sum waay taan bi ñun xam nañ prénom famille fay Sall voilà ay Amadou Sall Marème fay Sall seen i prénom xam nañ leen quoi waaw mais Sénégal lu ma fi naqari gaama a sum waay boobu ba léegi ay artistes yoo xam ni ñu ay criminels financiers nañ ay hommes d'affaires ah ay éléments laam saa waay yow ñoo xamante ni yow daaw ñu ngi yéene woon Sonko dee wala boog ah ñun fàttewuñ de fekkee gars yi ñuy fàtte ñun fàttewuñu te man si à dire man lu ma si gën a naqari mooy xam xamal lan mooy sama genre yi nga xam ni man man mi may xeex man boobu songoo sax si si taan bi man ay 2018 laa commencé xeex dama xeex saa waay xoolal ba gis Sonko xam ni kii mi ngi si yoonu dëgg bu defee erreur ba ngay waaw ba keroog may ànd moom xeexle ko ànd moom ba saa xoola fi ma gisee ma wax gaama la sumuwaay xam nga dañ naan booy Pastef bi wala rappeur Pastef man eh man si kenn de man xeexkat laa jàmbaar laa barki Seydunaa Muhammad salaay salaam yaakaaruma kenn ku dul yàlla waaw ah, te xeex moom xoola lu ma miin la waaw ah, keñ moo tax ma la dëgg ka see daw sama yaram mu boowuma kenn mu boowuma kenn jàmbaar laa sama yoonu bopp laa jël xuus dëggal sama bopp waaw ah, keñ kon mu ñu ñëwee gaama la sumuwaay nan deg man man ñu man dag may fay quoi ah ñu man dag may fay booy. booy booy booy booy ñu ànd seex booy man la sum waay ay naafeq booy nga xam ne yaa ni ñuy ay patriote di fen waaye booy teel a neex nekk ay baadoo la fàtte démb bu fàtte démb gaamal la sum waay doo gor ndax démb moo waral tey waaw kay démb moo waral may ñëw gaamal la sum waay may dee ay ñabar ay xam-xam yu ñuul lépp lu ngeen mun di def si xam-xam bu ñuul yéen ñëpp nax man la sumuwaay lobby bi association malfaiteur bi yéen ñëpp A ba Z bépp xam-xam bu ñuul xoola retour vers la voyeur yàlla na ko yàlla xëpp seen i kaw xëpp ko seen i kaw njaboot si barki Seexu Tijaani barki ifaadatika min koy léegi xaatati nuril muntal sàmm yaa ngi dégg ay naa fekk yu bon ngeen heure bi kaso leen waroon fekk moo tax man naa continuer di dénoncer man saa waa parce que mu tax xam nga lu may bañ wax naa ko taa yëpp maa ngay wax ku ma am ndey ku ma amul je suis sénégalaise xoola ñaanu ma ko baaluwuma saraxuwuma kenn ku bëgg porter plainte na porter plainte ba su ma malfaiteur nag porter plainte ñu jaama doole condamné ma waxuma la dugal ma kaso de parce que ay diffamation yi ay sursis la wala ay amende mais dama ni la xoola bi ma condamné laa lay wax malfaiteur bi ma plainte dugaluñ ko kaso man saa xoola réfugié laay jëli statut réfugié exilé dem beneen town changé nationalité bi wax lu ma neex barki alxuraanu karim man dawuma peloton de ay booy xaw ma ay feeñal digital xaw ma këtt geen a gaan ah yow Serigne Mbuub saawaay Serigne Mbuub lan la woote du andi ndaw la xaw ma du loolu la woote woon ah gars yi ñëw gaama la sumuwaay amul sax gaan saawaay zéro virgule deux pour cent wala boog di ñëw di buruxlu naan ay songo sama xarit la eh, di sóob songo gaan grève de la faim bi daaw yu metti ñun xam nañ ay xaritam ñi ko bëggoon ak ñi ko bëggul woon ak ñi ko doon yéene dee waaw di sóob yow Macky jox la chambre commerce Kaolack Kaolack Kaolack du la sax gis budget ville de Kaolack 7 milliards saa waay tu te rends compte boo leen di ko lancé délégation spéciale di ko jàpp si kaso bi la jëm sàcc la moom tamit Serigne Mbuub est-ce que dégg Serigne Mbuub boo leen di ko lancé délégation spéciale ville de Kaolack di ko jàpp ba pare di ko yóbbu si kaso bi voilà temps passé rek ville de Kaolack population bi ñu ngi koy porter plainte pour a ak complicité de escroquerie wala boog eh gars ñun ay lanceur d'alerte nañ Ousmane Sonko mais respect nguur gii nii mais respect wóolu nañ leen gëm leen mais machine bi ni mu yéexee loolu moo ñu naqadi waaw ba sàcc yi nekk fi di def ay pexe di ñabar Ousmane Sonko gars yi dañ laa nootoon nootoon noot sànni la ay ñabar liggéey la bu dul woon rawxaan yu baax yi la topp di la sàmm di la xaar ma yàgg ka wax depuis daaw ñëpp di ma weddi avant ñu lay jàpp bu dul woon rawxaan yooyu sax xëy nga ñëw tëp tëb tëb lavage cerveau baal leen ñoom ñëpp ba pare jël leen sax ñenn yi nga intégré leen dugal leen si nguur gi ay santal yàlla bu baax président Diomaye sant leen yàlla bu baax da ngeen gaaw jug si sàcc yi waroon ngeen joxe ndigal bu yàgg ñu jàpp leen ñoom ñëpp yóbbu leen si kaso yi waaw ñu nekk si dëkk bi fii di suul ay nag yuy dund barki Seexu Tijaani barki Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni ëppoo leen ma bopp de yéen pour yéen heure yi gaan tàggee nag ma quoi ah wala xabtal ngeen ma ma def nii xeex rey nit ñu tëj ma kaso à vue ah yéen a seen bopp maa ngi sax si di ñaan xoolal lépp lu bon li ngeen def yàlla na gaaw xëpp seeni kaw ak seen kaw njaboot maa leen gën a dëgër bopp fuuf te pëy yàlla bi laay dund jërëjëfee ba sa maam René Sarr est-ce que ay dégg yéen xamoo leen sax nu mu demee dama ni la di xew si mim réew man moo ma naqadi politique man même ñi ngay gis ni ñuy politique sax naan xaw ma ay opposition booy seen loxo setul booy ñoom ñëpp ñoom ñëpp laa lay wax nii kenn kenn si ñoom seen loxo setul ah, booy ñoom ñëpp seen place kaso la woon heure ñu génn naan ay coalition xaw ma lan di bandi bandilu booy naqa de état man du ma la nëbb de man si dëgg laa ànd ak képp ku mu munti doon waaw te haute trahison bugguma ko parce que haute bu amee rek man gaan saa waay kon waay traumatisme boobu noonu sa loolu yàlla bu ma ko sax dund yéen ma ko sama bopp kon teg leen bagaay si yoon ñu ngi doon xaar justice justice ñëw ah mais affaire bi bàyyi machine bi moo yéex quoi machine bi lan la manqué yow essence wala huile wala lan la manqué baax leen ñu machine bi lal la manqué bàyyi bu dee huile léegi léegi ñu kolo kolo ko yi ñun ñu doon xeex si mbedd léegi ñu kocciwaat ko def si huile gaan ba mu patiné wu waaw keñ wow kongu nooy di taaweeku di dem bu dee essence léegi gaan station bàyyi nii wala boog la moo manqué gaan machine bi dafa yéex boo bëggee dégg-dégg. ay balaa may jeey ñaar xaw ma ay yii nii assemblée nationale xoola bés moo fa duggee rek en tant que député du peuple incha allah rabbi billaay di ngeen am problème parce que temps bu yàgg bi ñu jotagum xaar yii nii saa waay xoola avant décembre deux mille vingt quatre le novembre su ma nekkee député avant décembre deux mille vingt quatre naa def le tout ba ñu criminaliser détournement de deniers publics fii ci biir Sénégal te su boobaa boo leen si kaso yi doo leen génn perpète na nga leen di tëj yéen ñëpp ba homme d'affaires kan yéen yéen yéen yéen seen baay yi sax ay sàcc nañ woon ñun gaan yi daw si bi yëpp xam ne ngoree yi yàgg daw si port bi di jël gaan mala la sum waay conteneur diwlin war a fay cinq millions ngeen jël déclaré ko fil de fer yëpp diwlin yi si biir bi fin bi ngeen yëpp si ay fil de fer fay un million parce que fil de fer un million lay fay enrichissement illicite yi ñun technique yëpp gars yi nand nañ ko waaw kañ billaay dama ni ay xawma ay fenal digital xawma yow gaan yow yow gaan yow sëriñ Serigne Mbuub yow gaan dof boobu la jël te daa la xamal Azoura Azoura du nit du dara booy Azoura moo ñàkk jom Azoura booy doon saaga Serigne Mbuub di tagg MC Niass MC Niass di ko teral di ko defal lu ne may ko liberté boo xam ni mayu ko sax ay taalibeem est-ce que ma lay wax xoola ay garde corps Serigne Mbuub téye ko kër de ville xam kër de ville xoola ko gars yi a keroog dégg naa dañ ko duma ba puub tubayam dafa yàq tubay yi saawaay yi dof boobu noonu booy tey muy ñëw booy ah ndax lag benn wécsit booy muy dunguru Serigne Mbuub ba di saaga MC Niass kii du góor de bu yaboo na sori Ousmane Sonko de parce setul baaxul santul yàlla eh maa ngi de bu yaboo na sori Ousmane Sonko du nit ku baax du grève laa leen di wax nii te dof la wérul. Sonko da ngaa bëgg de. 4 tonnes 4 tonnes engrais. Sonko nit ku baax la dafa am kersa rek gars yi nii dawal ko yërmande comprendre parce que danaan ñëw nekk dof téye drapeau bi yow téye drapeau kese sax xeex yow xeexoo de yow xeexoo defoo dara ah ñun dañ koo xeex si mbedd yi waxuma sax si mbedd bi de mbedd yi koñ ah di wër di ko xeex di dugg koñoo koñ ba pare di dugg si média yi dem ba fës saawaay ba bu ñu wàccee si mbedd bi sax jeunesse yëpp dañuy ñëw songuñu ne gars da ngeen fës see leen te pourtant dañuy sol suñu kagul nëbatu yow xaajoo dafoo dara yow saa waay Azoura yow dafoo jëne jàpp la da ngay doodoofu da ngay def nii mu wu ñuy sol la te mu wu baaxul dafa nëb waaw yow saa waay 4 tonnes 4 tonnes engrais la encaissé 4 tonnes engrais. Azoura Azoura 4 tonnes. 4 tonnes engrais ba pare xoola jox ko benn boo booy bi di ko ko jaayal. loolu yëpp xoola ki la jox kilo jox engrais yi xam nañ ko booy bi nga ko jox noonu tamit xam nañ ko yooyu yëpp incha allah rabi ñu ngi siy ñëw muy fen naan dafa am tool yow fa la tool. amul tool de. 4 tonnes kay mun na dama ni la fen amul tool. tonne engrais xam nga lu muy gaaw muboo saa day jéem muboo tool. 80 sacs waaw keñ 80 sacs waaw. si tool. moom lu ma la wax yooyu ay mafia ay njuuj njaaj la parce que gars yi setuñu. Azoura tey say moo fi indi yëpp ñëw naan gaana day day dem jëli xaw ma ay équipe bu xaw ma lan di muboo. yéen patriotes yi ñu jël ay gandi yi ngaaxa nañ ay dof nañ te fii na nga leen jëlal appartement. ci Nord Foire bi fii Ouest Foire ah Ouest Foire dajal leen fii si benn appartement Ouest Foire dama ni la feeñal digital moo gën a yées C50 PN yaa faaliwu C50 PN barki Seydouna Mouhamad sallallahu alayhi wasallam barki Mawlana Cheikh Ibrahim feeñal digital moo gën a yées téeméeri junni yoon C50 PN parce que système bu amul fenn la non kaay moox la parce que ma la parce ñi ñuy war a déglu dañ dégluwul man loolu bi ma siy alerté yàgg na dégloolu du dëgg waaw keeñ man man bi ma siy wax sax tegaguñ ko parce que man amoon naa information que lobby mission secrète bi ñu ngi commencé jël ay boy digital ak ay boy influenceur di leen dajale loolu yow loolu bi loolu bi ñu koy tourné saa waay nekk si oto bi ma yor kaamin alxuraan bi yaa fàlligu bi may alerté si loolu fekk ñoom la woon ñoom ñoom la gars yi jël ñun ci dëkk bi nañ dëkk fii dara mënuñu réer saa waay lu ñu bëgg xam dañ koy xam baaxoo leen santoo leen yàlla te xoola du sëriñ mbuub kase de sëriñ mbuub xëy na gars mun nañ ko délégué wala mu nekk représentant mais dama ni la xoola ba si waa ji waa ji falsifié woon signature Ousmane Sonko fii la dëkk Ouest Foire waaw keñ gaayanu Jérôme Bandiaky bi ñu jàpp la Jérôme Bandiaky Jérôme Bandiaky tamit mun naa si ñëw jox lay information yu dul jeex jàpp nañ ko waaw déggoo lu ma la gaan gaan gaan bi xaw ma jàllo jàllo mooy ki jàppoon si muy falsifié signature Ousmane Sonko ah. déggoo booy feeñal digital yi wax si de déggoo ko de te doo ko mus dégg ba max ñeneen ak ñeneen nii lay demee nag incha allah rabi ñuy jàppale gars yi seen i burlu waaye du si dal ba léegi maa ngi alerté Azoura tey say xola quatre tonnes engrais noon ñu ngi ñëw si booy seen ay privilèges ak seen ay opportunités yi ñuy jot yëpp te ministre yi nga xam ne ak DG yi nga xam ne ñoo leen di jël ñu leen di couvriral teguñu ko si rupture teguñu ko si jub jubal jubanti te c'est une insulte c'est une haute maa ngi koy dénoncé di kalaame le président Bassirou Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko parce que tey say saa waay dañu waxante dëgg ñun duñu ay ngaaxa ah on est Sénégal y a des professionnels des qualifiés des wala boog mais la moo tax gars mënoo leen defal gars convention normale wala mais non non gars di ko def ay booy na ñuy ñëw ñu ñëw couvrir après ñu jox leen wéccit ah xaa loolu saa mooy li fi amoon rek après nga ñëw déclaré ne comme ça yow génnee nga gars pour média yi. convention exemple nga ne si année bi ah cent millions par exemple nga ni cent si année bi fekk cent millions yëpp si booyee nga ko tasaaree ku si nekk bu ñëwee cinquante mille cinquante mille ñun ay ngaaxaree yoboo ngeen bàyyi seen lu ngeen di def yi bur si taan bi ci suuf lépp xam nañ luy daw ñun duñu ay ngaaxaree waaw Jérôme Bandiaky sniper ñun xam nañ ko bu baax yàlla def na ñun job nañ wàllu sécurité rapprochée di garde corps ñun ay garde corps nañ a après nax gaan ñu formé si qualifié école police man def naa fa cinq ans sans compter yeneen feneen ak feneen fu ma jaar yaa ngi dégg tey say Bandiagui ay deux mille quinze deux mille seize ba deux man jamono yooyu noonu dañ doon job quoi jamono yooyu noonu waaw parce que jamono noonu moom Macky Sall bu waraan dem si région yi dafa may woo ma wutal ko ay élément man yàgg naa ko wutal ay élément ay élément nag professionnel ay capot waaw éléments yi ma ko doon wutal quatre-vingt ñoo doon xeex fii si koñ yi si ay jeune nañ saawaay bëgg liggéey gëm suñu bopp maruñu dunguruñu kenn waaw te duñ ay cokoto ay bañkat nañ oo ji yaakaaruñ ko si kenn dañ koy coaché est-ce ay dégg waaw keñ saawaa ji même Macron bi muy ñëw ndar sax Saint-Louis comme si man boobu gaama la sumuwaay utal naa koy élément ñu dem boobu Macron maa ngi fàlligu bi muy wàcc noonu naan day nuyu gars yi noonu ma téye loxoom nii garde corps tubaab bi dooree ñëw est-ce que yaay dégg mais moom si boppam man dama dem ba benn jamono xam ni kii du ku baax man kenn du ma def loolu bon ay sale boulot du ma si dugg kenn du ma ko def loo vision professionnelle yor sama cadre professionnel liggéey nañu seq ma liggéeyal la waaye bu naree salté ay affaire de nervi wala ay affaire de sale boulot yooyu du ma ko defal kenn waaw ma tax jamono yooyu noonu man ay 2018 laa teel a comprendre xam ni Macky Sall du nit baax Saal Macky bi ñoom ñëpp ma tuddee leen Saal Macky ne leen Saal Macky dégage ci laa commencé xeex daf samay vidéo clip il m'a contre Sénégal Macky mooy unku bi yaa ngi dégg d'ici Sénégal Saal Macky dégage yëpp mi ngi si net bi mi ngi si YouTube bi waaw dañoo xeex ak Macky Sall ba heure bi ñu xeex ñun bu gars yi xeexoon ak ñun kon du sax am deuxième mandat parce que ñun bi ñuy xeex saa waay xoola gars yi ñuy dëkkal fu ñu dëkkul naan ay booy bi dafa réew booy bi yee eh, eh. waaw ah, xam ngeen ni dëgg mooy mujj de man ñu may collé motif kenn collé wul kenn motif naan terroriste wala dara waaw kañ man saa man man bi dara dul dara laa commencé xeex man du ma boo de man bañkat la waaw bañkat santul la sax mais bañkat la chaque jour ñu dégg ko ko waa macha allah alhamdulilah mais tey si tey maam askanu Sénégal maa leen di bëggee parce que ñu ngi rafetlu maanam sama candidature pour élection législative yi 17 novembre. chaque jour maa ngi def ay concept ay vidéo le 17 nañ ko commencé jour ju moins 60 démb jour ju moins 59 tey jour ju moins 58 def nañ religion def santé def éducation suba incha allah rabi ñu def culture chaque jour fii ba législative yi dinañ leen wan ay objectifs ay projets yu mucc ayib pour andil ko askanu Sénégal xeexal Sénégal waaw ok ñun Sénégal lañ am kenn gënuñu ko bëgg danañ continuer di ko xeexal incha allah rabi ci dëgg ci kaw dëgg nax waaw si jaam salaam. boo gisee Pastef nii ñu respecté leen parce que gars yi xoola lu si bëri si dëgg maanaam à la base nga koy gis donte ni yenn saa nga gis yoo xam ni ñu ngi ay booy Azoura booy booy booy bi vrai yàqu der la ay booy feeñal digital xaw ma ñu ay yàq der nañ de bu yoboo yéen DG yi joob ñoom ak ay ministres yi joob ñoom xaw ma bu yoboo ngeen bàyyi lu ngeen di def waaw keñ ngeen teg jub jubal jubanti ñu ko jomaay wootee maa ngi wax nag saa yi renseignements généraux yi ah jël information yu baax yi te renseignement généraux saa xoola crédible jub waaw ay affaire de corrompu yi nañu war a baay di dem nga mala la si borom doole yi ah wala lobby bi ñuy ñëw gaan naan laa lii wala di la dicté wala gaan di la waxloo ay fos information wala dara man gaan yi ngi may xeexee xam naa ko de di dem di ma jéem a jaxase Ousmane Sonko du ngaaxa de keneen ak keneen góor yu baax yi duñu ay ngaaxa boo leen demee si góor yi naan na ngeen di yàq sama der wala dara seen bopp la ngeen di def mais renseignements généraux yu crédible yi nañ liggéey waaw jëf seen liggéey wax ni boo ni yëpp ay ay ñu yi ñuy jàppale ñuy buruxlu setuñu jubuñu baaxuñu waaw kay man lu ma gën a naqari mooy gaan martyrs yi booy mémoire bu martyrs yi ñu trahir ils ont trahi la mémoire des martyrs parce que martyrs yi gaan man la sumuwaay heure gaan boo leen yeewoon boo leen yeewoon wax leen yenn yi du ko gëm booy ñëw war a xool martyrs yi ah booy ñuy ñëw naan dañuy jàppale gars yi di buruxlu ndax lan ñooy di jox weccit wala boog yéen amoo leen ngor amoo leen dignité ñun proposition yi ñu am nguuru Macky Sall boo leen ko amoon barki Seydouna Mouhamed salaay salaam ngeen nekk ay saagagatu Sonko ñun tegal nañ ñu nii 10 millions pour ñu saaga Sonko ñu bañ ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul jeex est-ce que yaay dégg waaw kañ tey si tey nag gaa ma la sumuwaay la yoon def yoon si sniper ba njagi man man gaan man naa la xamal benn affaire de xaa xamoo même Amadou Sall gaa ma la man bokkoon naa si liste bi ay dàmbooj ñu naroon rey saawaay ay Pape Sané man bokkoon naa si liste bi koo pour mboq mënoo ko jëw man dem naa saawaay parce que gayaan Sénégal dafa xat da ngay wax kii ni mooy loolu kooku dem wax ko keneen ainsi de suite gars naan seen booy bi lii booy bi xam nga ba affaire yi toog sama nopp ñu ne booy bi dafa ma bëgg crime gayaan waaw yor seen oto gayaan man la waay mbëq ma gayaan si tali bi ba njëkk sañu ma woon def yenn action parce que xam tax parce man gars ma la su waay maintenant chaque jour laa lay wax nii mafia bi rue 5 xola da fa daan mbëkkante est-ce ay dégg waaw kañ tey say gars ma la su waay moom ma ma moom tey say mënu ma woon def yenn yi quoi bu ma nekkoon yeneen nii saa xëy na moom sax moo may exécuté wala moo may jëm exécuté man du ma ngaaxa de man doo ñëw nii saa waay mooy loolu de waaw kañ macha allah alhamdulilah yàlla ñu yàlla sax si di ñu am di ñu sàmm di ñu aar di ñu làq fu yàq yeggul mais tey li ma may la Amadou Sall place am la moom tamit fu ñu jàppee Jérôme Badiagé war nañ jàpp Macky Sall war nañ jàpp Marème Faye Sall war nañ jàpp Amadou Sall parce que ñoom gaan xoola ñoom ñoo doon maanaam sant Sall buloo yëpp Jérôme Badiagé sniper est-ce ay dégg ay malfaiteur nañ lépp ñoo ko daan toogu ay Amadou Sall booy ah Amadou Sall booy boobu gaan nekk fi gaan di jël ay xaw ma jënd na nag affaire yu bëri jënd na ko fii si Almadies ay nabi neex ay feneen ak feneen ay xaw ma gaan ay xaw ma seekacaa xaw ma yéen da ngeen ñu mën a tuur lëndëm wala da ngeen foog ni ñun ay ngaaxa nañ wala ñun lan la wala boob yëpp la jënd gaamal la sum waay xaw ma def ko si ay prête-nom na état bi li jënti loolu na état bi gaamal la sum waay RG bi ngeen joxul information yu baax yi ngeen jëre ñu jox leen information yu baax yi parce que tey si tey gaamal la sum waay immeuble yu bëri yi ngeen di gis ñuy tabax fii nii saawaay balaa may dee ñu naan ay lii résidence la résidence yooyu noonu yëpp xaalis Sénégal la blanchiment d'argent la ay prête noo nañ yo sóob jël lamb ji gaan mu boo ko gaayamal la sum waay daaw bëgg Sonko avant ñu koy jàpp ah teg seen mafia pour bu ñu jàppee Sonko gaayamal la sum kenn du gën a yëngal loolu gaan comme démb si ñun de comme démb si ñun tey ñuy ñëw gaayamal la sum waay naan lan ay xaw ay diwlin les patriotes xaw ma lan ni saaga la saaga la quoi ñu naqari ba si kanamu yàlla dana yoon gaaw def yoon parce que yàlla dossier bato engrais yi da ko war a tijjiwaat six milliards saa waay wala boob ah naa si gaamal la sumuwaay sénégalaise la soo amee dee ñuy topp doomu jàmbur yi di liggéey di noot gaamal la sumuwaay ba gars yi ñu mën a wax ñu dinañ sax si di wax dëgg bi incha allah ba xen boo ko moomee jël leen waaw baaluñu leen saraxuñu leen ay dëmm ngeen wala sumuwaay ji ñebe yu nëb incha allah rabi dëgg rek kay dëgg te mooy mujj lépp ngi suñu kanam incha allah rabi waaw gañ Khalifa rappeur laa mi ñu askan wi noonu naa fekk yi nga siy teg man naa fekk du ma bëgg te képp kuy naa fekk bëgguma la ak koo doon mu bool Pastef mu bool opposition nekkal naa fekk lak yow man maax yow dafa ñu nenn te bëgguma ñu def nenn